kuñ joxul woon xàqam gi nga xam ne yelloo woon fa na ko wante bi lislaam ñëwee la fi jële loolu yépp ndax arab yi àggoon nañ foo xam ne képp mu ku ma saana am doom ji jigéen rek danga ko daan bañ danga ko daan yóbbu ba ci àll ba nga gas ba mu xóot nga suul ko wante bi lislaam ñëwee la fi jële loolu yépp ne jigéen lépp loo xam ne bu ko góor defee am ci tiyaaba su ko jigéen defee dana ci am tiyaaba ndax arab yi méttital jigéen googu àggoon nañ foo xam ne jigéen lu métti rek lañ ko daan def mën nañ cee indi ki nga xam ne ci ku màgg la ci saxaaba yi muy Seydina Omar ibnu Xattaab jëf na jëf ju mel noonu laataa muy tuub di dugg ci lislaam ndax jur na doom muy jigéen mu yóbbu ko ca àll ba mu gas ba mu xóot mu suul am mbokk yi xoolal loolu ni mu mettee kon jigéen kuñ daan mitital la jigéen kuñ joxul woon cër bi nga xam ne yellofoon na ko ci lislaam waaye bi lislaam ñëwee la fi jële yooyu yépp ne jigéen cër bépp loo xam ne rek bu ko góor defee dana ci am tiyaaba soo ko defee yow tamit danga ci am tiyaaba ndax lislaam cër bi nga xam ne jox na ko jigéen mooy sikkil gi nga xam ne sikkil na ko jigéen mën nañoo indi ci li nga xam ne ji lislaam indil na saar jigéen muy sóoratul nisaa yi sóoratul nisaa yi wàcceel na ko jigéen jëlaat saar tuddeewaat ko jigéen muy sóoratul mariyam kon loolu day firndeel ne lislaam siggil na jigéen jël na jigéen jox ko cër bi nga xam ne yelloofoon na ko wante timit jigéen ñooñu fàttewuñ cër bi nga xam ne lislaam joxoon na leen ko dañoo jëlaat cër boobu joxaat ko lislaam ndax lislaam metti woon na lool ca njëlbéen ga ndax ki njëkk a dee ci lislaam jigéen la muy Sumayya biñ koy jam jaasi bi Abu Jahl mi ko doon jam Sumayya mi ngi doon wax naan allahu ahad allahu ahad yàlla kenn la loolu day firndeel ne jigéen metti woon na lool ca njëlbeen ga ci ba tey itam ci biir loolu jigéen cër bi nga xam ne jëlaat na ko joxaat ko lislaam muy jaayant ki nga xam ne daan nañ ko jaayanteeg seen borom kër yi mën nañ ci indi ki nga xam ne mooy yaa ja yaa ja nekkoon soxna su njëkk si yonent bi bi ñu yonent bi ñëwee woote wooteem bi woote wooteem bu màgg bi yaa Xadija moo ko njëkk a wuyu si dimbale ko si darajaam dimbale ko si alalam da wax nañ ne euh, yaa Xadija bi mu faatoo yenent bi jànkontale nekk ay jafe-jafe yoo xam ne bu soxna Xadija mu doon dund yenent bi mën na ko bañ a jànkontale kon loolu day firndeel ne rek ne jigéen ñooñu jëlaat nañ cër boobu siggilaat ko lislaam ba tey itam si biir euh, siggil boobu nga xam ne jigéen siggil na ko lislaam mën nañoo indi ci li nga xam ne mooy wàllum xam-xam jigéen ñun ñu amoon xam-xam lañ ñun daan gëstu la mën nañoo indi ci ki nga xam ne mooy soxna Aïcha ba yenent bi daana wax naan lépp lu leen lënt rek ci seen xaaju diine xool leen ko jig ci jigéen ju xees ji di soxna Aïcha ci biir xam-xam boobu ba suñu wàccee ci suñu jamono jii fii ci Sénégal mën nañoo indi ki nga xam ne mooy soxna Asta Walo Mbàkke fonk gum fonkoon xam-xam ak pëstef gum amoon ci xam-xam tax na boo ko mësaan a fekk ci daara yi góor nga ko daan teg lépp ngir pësteefam rekk ci xam-xam waaye mbokk yi jamono jooju dafa wuteeg ak jamono ji ana loolu lan moo ko waral ndax jigéen ñi léegi dañoo xaw a sàggane diine dañoo war a dañoo xaw oyofal li nga xam ne mooy diine ci oyofal diine googu ak sàggane gi nga xam ne sàggane nañ ko diine mën nañoo indi ci li nga xam ne mooy wàllum xam-xam jigéen ñi léegi lu leen neex la ñuy jullee dañ surtout jigéen ñi soxna yi léegi lu leen neex la ñuy jullee ndax fay ci yi nga xam ne ñu ngi koy toog di ko di di ko seetaan dañuy toog ba waxtu julli weesu ñu jug këpp-këppal jug wala bu ab film tàmbalee ñu ne dañuy bàyyi ba filmu bu jeex ñu doogo julli kon loolu lu mat a bàyyi xel la xam ne ñun julli lañ war a jiital ci lépp loo xam ne rek mën nañ koo def soxna yi léegi xàmmeetuñ seeni farata xàmmeetuñ seeni sunna te ab artiste bu génnoon ci tele bi soo ko laajee nit kii ku mu doon dana la wax turam wax la santam wax la fu mu léegi ñun soxna yi léegi lu tax loolu nuñ ko munuñ koo def ci xam-xam aka war dañ koo war a def ci xam-xam xam ne jigéen mooy école bi njëkk ci nit al ummul madarasatul ula jigéen mooy école bi njëkk ci lislaam kon ñun soxna yi dañ cee war a bàyyi xel ci loolu ci bu baax ba tey itam ci yàq-yàq jamono yooyu mën na indi wàllum col soxna yi léegi lu leen neex la ñuy solee xàmmeetuñ li nga xam ne moom lañ war a sol ak li nga xam ne moom lañ warta sol te xam nañ te wax nañ ne jigéen soo xamee ne sol nga jenn sol goo xam ne rek génn na ko jenn sol gu yiwul rek su ko génnee ci mbedd yi ka képp ka ko xool bu amee bàkkaaram bàkkaar boobu yéen ñaar yéen a koy bokk waaye soxna yi léegi xàmmeetul lenn loo xam ne rek war nañ koo sol te yiw dafa baax mën nañoo indi ci ki nga xam ne mooy suñu maam soxna jaara xolu yiw gi mu yiwoon ak fonko ngum fonko sunu borom muy indi turu jaariyatullaahi dëkkaaleb yàlla ba kon loolu day firndeel na ne soxna jaaru ku yiwoon la ku fonkoon sunu borom la ba daf daan muuru daan jël saru rabal daan ko teg ci kawam kon ñu soxna yi dañoo war a xoolaat bu baax ci li ñuy def surtout ci suñu wàllum col ba tey si loolu mën nañoo indi ci wàllum mees mooy yokk gi nga xam ne ñu ngi ko yokk suñ karaw yi yonent bi mi ngi wax naan laanallaahu alwaasilatu wal mustawsilatu nee na sunu borom rëbb na kiy yokk ak ki ka yokk te suñu borom ku mu rëbb dana la jàpp kon soxna yi ñun nañ xoolaat bu baax ci li ñuy def dañ bàyyi suñ lépp loo xam ne ñu ngi koy teg naan cheveux naturel loolu kay du naturel suñu borom lim la bindee moo naturel kon mun nañ koo woowee cheveux culturel waaye du cheveux naturel kon ñu soxna yi nañ bàyyi xel boobu loolu ci bu baax te xam ne dañoo war a fonkaat suñu borom wala jëlaat suñu xel mi delloo ko ci suñu borom ba tamit ci suñu wàllu euh, yàq-yàq jamono jii mën nañoo indi ci li nga xam ne mooy xeesal xeesal mooy ni la suñu borom bindee neexu la nga danga koy sopp loolu mooy xeesal ni la suñu borom bindee neexu la nga ne danga koy soppi te népp lu la suñu borom bindee yaakaar naa ne moo la a gën a mën a neex waxantuma laa nag nga naan danga koy soppi kon ñun soxna yi nañ ci bàyyi xel bu baax te. jël yiw rekk daat koy fas yéenee jaayante bu baax ci ci ci lépp loo xam ne rek mu ngi jëm ci suñu borom ba tey ci wàllum yiw googu muuraay yi ñi nga xam ne soxna yi ñu ngi koy xewal léegi wax nañ ni dañuy muuru de wante yenent bi muuru gam wax damaa dafa wute loolu ak muuraay léegi soxna yi léegi muuraay modd lañ ko def jël seen kol fu leen neex ñu wengal fa jëm kon loolu ñun dañ cee war a bàyyi xel bu baax xam ne bañ naan muuraay dañoo war a muuru suñu awra yépp ba Serigne Touba mi ngi wax naan duumi alal umuli tax tasatturi wa tahfidi sawtaka dahran tushkari nee na soxna daa war a wi muuru di suturlawu di muur ay cëram wante waxul ne muuraay ba pare du sol tubéy kon loolu yow kaw ga nga muur waaye muuroo suuf ga waaye bañ bañ naan muuraay da ngay muur ba ci sa tikku jara muur sàng say cër tey suturlawu kon ñun soxna yi loolu dañ ci bàyyi xel bu baax dafa seene defaat pësteef ci muuraay yi ba tey itam ci yàq-yàq jamono jooju mën nga ñoo indi mooy soxna yi ak njaboot gi ak boroom kër ndax soxna dafa war a yar ak njabootam soxna dafa war a yar ak njabootam ndax sëñ Sàmbay daana wax naan gone yi ci kër gi buñ yaroo gone yi ci kër gi ñi dendeel yaru bu yàggee gone yi ci koñ bi nañ yaru bu gone yi ci koñ bi yaroo bu yàggee gone yi ci gox bi danañ yaru bu gone yi ci gox bi yaroo bu yàggee gone yi ci réew mi yépp nañ yaru kon ñun soxna yi nañ yaraat xale yi xam ne ñun dañoo fee teg ca kër ga pour ñu yar ay njabootam ci biir yar googu mën nañoo indi ci ki nga xam ne tamit mooy suñu maam soxna jaara xoolal nekk gi nga xam ne nekkoon na ko ak njabootam ak tàggat gi nga xam ne daana ko tàggat njabootam ci diine ak ci lislaam wax nañ ne ku tedd ki muy Cheikhul Khadim danaa fi la na guddi njëkk ci muy dem daara te loolu day firndeel na rek soxna jaaru ku ku bu mësaana toogaa toogoon ak moom daf koy waxal ci nit yàlla yi niñ daan nekkee ak jaamu gi nga xam ne daan nañ ko jaamu sunu borom ci lépp loo xam ne rek dana jëm ci sunu borom waaye tamit loolu ku ci bëgg a am lu la leer mën nga dem ci minanul baaxul xaddim bu sëñ Bachiru danga ko ca fekk kon soxna yooyu dañ daan jaayante dañ daan yar seen ak njaboot ci lépp loo xam ne rek dana jëm ci suñ diine kon ba tey ci biir loolu danañ te la ñuy ni nekk nu soxna ak borom këram waaye soxna yi léegi dañoo jël jël borom kër yi def leen moroom naan parité l'islam indi na parité waaye fenn la indee parité muy lépp loo xam ne bu ko góor defee am ci tiyaaba su ko jigéen defee dana ci am tiyaaba loolu la lislaam wax muy parité waaye soxna yi léegi parité dañ koo jël wel ko fenn bu góor ga xëyee jigéen ja xëy bu wàccee mu wàcc ñun soxna yi dañ ko war a xeex suñ soxna yu baax yi fi nekkoon daawul doxalee noonu ak seen borom kër yi kon ñun loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne soxna yi ñun ñoo nekk ci kër yi waaye soxna yi léegi lu leen neex la ñuy doxalee ak seen boroom kër yi kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax xam na ñun borom kër yi euh, moo ñooy suñu kilifa moom la ñu war a fonk moom ñoom lañu ñu war a respecté ba tey ci biir fonk borom kër boobu Serigne Touba mi ngi wax ci jawaaba Penda Diop naan wala tarummi taatillaahi bi la taati zawji taqisil hula wal taxlami azza jihaadi nisawaati fi taati azwaaji duuna miryatin nee na jigéen dafa war a topp borom da warul soxlawoo lu may topp yàlla lu may soxlawoo lu may topp borom këram ci li nga xam ne moo neex yàlla ndax nee nañ jixaatul jigéen mooy la nga xam ne mooy àggale jigéen ci suñu borom mooy topp borom këram ci li nga xam ne moo neex sunu borom ndax mi ngi dellu wax naan fa aysuma zawji raddi an zawjati raddi anha rabbuha bi nihmati nee na jigéen saa soo xamee ne borom këram gërëm na ko jigéen jooju sunu borom daf koy gërëm muy yàlla di wax naan amma iza lam yarda anha abada fa laysa yarda allahu anha sarmada nee na soxna saa soo xamee ne borom këram gërëmu ko ba faaw soxna soosu sunu borom du ko duñ du ko gërëm kon ñun soxna yi loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax waaye soxna yi léegi defuñu lu may ñaari baat ñett ñu ne may ma sama baat damaa sonn damaa tay damaa damm soxna yi léegi loolu lañ jël mbubboo ko te loolu lu mat a bàyyi xel la ndax yenente bi mi ngi wax naan أيما امرأة سألت زوجها طلق من خير بأس فعرم عليها رائحة الجنة nee na jigéen saa su ñaanee borom këram rek am pase loruwu ca nee na jigéen jooju xetu aljana du ko xëy kon loolu lu mat a xel la ci ñu soxna yi nga xam ne ñu ngi koy doxalee ak suñu borom kër ba tey it mi ngi wax naan jigéen saa soo xamee ne borom këram. mi ngi koy woo ci lalam muy muy muy ngàntal nee na soxna soosu malaaka yi yërmaande yi dañ koy fanaanee mere ba bët set kon ci gàttal ngir bañ a guddeel soxna dafa war a fonk borom këram ci li nga xam ne moo neex yàlla ndax jigéen bu njëkk kuñ joxum woon cër la kuñ daan méttital waaye gis ngeen bi lislaam ñëwee fim ñu jëlee ak fim ñu yóbbu kon ñu soxna yi dañoo war a delloowaat suñu xel bu baax ci li nga xam ne mooy lislaam gëstu jiwaat téere yi sàkku ji xam-xam xam suñuy farata xam suñuy sunna te ñun xam ne loolu moo ñu war te yaraan njaboot gi xam ne al ummu madrasatul uula jigéen mooy école bi njëkk ci nit kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax te fonkaat borom kër yi fonkaat njaboot gi yaral xale yi bu baax kon xanaa ñuy yamale foofu kàddu yi rek na waxtu wi dañoo xaw a xoj wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh